بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala te jël tey benn aaya muy aaya 35 aaya bi borom bi tabaraka wa taala mu ngi ci jàngal masruiyatu tahkim fi shiqaaqi bayna zawjayni wa bayaani zalik yoonal gi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala yoonal na ñuy yónnee ñu xereñ ci mbirum wuute ci mbirum jafe-jafe ci ñaari way dencante loolu mbokk yi mooy aaya bi nga xam ne moom la ñuy jël tey comme nin ko baaxoo di wax rek mooy bi nu bàyyee alquran sori ko ci lañu yàlla subhanahu wa taala natt ñu am ay jafe-jafe ci sunu dund ñun ñi nekk ay jullit ñun ñii di tuddoo jullit suñuy problème àdduna ak àllaaxira yépp yàlla réglal nañu ko ci téereem bu tedd bi looloo tax du jaadu ñu won téere bi ginnaaw suñ ko wonee ginnaaw rek li li nu dal tey mooy li nga xam ne mooy li war a nekk yàlla subhanahu wa taala téere bi mooy téere bii rek la problème mu àdduna mooy téere bii rek la problème mu àllaaxira lu mu mën a doon am na solution ci alquranul karim looloo tax mbokk yi problème bu ndaw bu mag yàlla rek la na rawatina nag problème mu biir néeg muy sëy sëy ginnaaw ba ko yàlla santaane borom bi subhanahu wa taala wax na ci téeréem bi nu ñu koy réglé bu amee ay jafe-jafe diggante ku góor ak ku jigéen mooy aaya bi nga xam ne moom mooy jeexintalu aaya bi muy aaya 35 mu ëmb mbirum société mbirum biir néeg borom bi ne subhaanahu wa taala su fekkee jafe-jafe am na ci biir néeg diggante borom kër ak soxnaam fa asbaha rajulu fi shaq wal mar fi shaq ku góor ki mujj a nekk côté ku jigéen ki nekk côté kii di tëdd ci kaw kii di tëdd ci suuf wala kii di tëdd ci biir néeg bi kii di tëdd ci saal bi wala ñu bokk lal kii xool ndeyjoor kii xool càmmoñ nekk woon sa morom ginnaaw boobaa jafe-jafe am na lan la ñuy def ndax dañuy xeex pour mu régler déedéet loolu daf koy yokk safara kenn gis luy tàkk nga ciy sotti pétrole wala nga ciy sotti essence moo tax wax leen ne alquran mooy téere solution àdduna solution àllaaxira amul nit kuy am problème ci àdduna wala àllaaxira dul yàlla réglé na am na benn boroom xam-xam bu jóge woon Turc dem Angleterre di fa jaay bitim bi mu demee ubbi bitigam di jaay immeuble bi ci kaw fu muy jaay magasin bi ci suuf dafa am ay yëhut yi fa dëkk yahud yi dañoo am benn xale bu ndaw bu fa dëkk bu tudd Jacques ngeen koy wax Jacques mooy Jacques al yahudi xale bi suba teel bu nekk dina wàcc di jënd si seeni ndékki seen waa kër seen famille li ñuy ndékkee waaye saa yu jëndee ba pare dina sàcc chocolat pendant ay at yu baree bari xale bi di ko def saa yu ñëwee rek góor gi jaay ko ba pare rek xale bi dina sàcc chocolat dem benn bis xale bi ñëw jënd góor gi jox ko ba pare mu dem fàtte chocolat bi mu génnee bitig bi rek góor gi daal di ko jox ne ko Jacques mu gees mu ne ko fàtte nga sa chocolat xale bi tiit moom bi muy sàcc chocolat bi góor gi gis ko fekk góor gi gis na ko da ko bàyyi ci biir tey ñëw na jëlul góor gi ne ko fàtte nga ko ndeysaan mu tiit moom mu daan ne góor gi ah kon yow yaa ngi ma doon gis mu ne ko maa ngi lay gis kay xam naa ne yaa ngi sàcc mu ne ko waaye bu ma boolee suñu waa kër bu ma yóbbu police ji pal dimbali ma rek góor gi ne ko ah loolu kay day am charte day am benn charte rek boo ma ko nangulee du ma ko wax sa famille du ma la yóbbu police du xam nga li nga sàcc fi ñaata at ngay sàcc sama chocolat bi xam nga ko mu ne xam naa ko kay léegi nag góor gi luy solution pour doo ko wax suñu waa kër doo ma yóbbu police mu ne ko ngas nangul ma ne dootoo sàccati soo ko nangoo rek ma baal la xale bi daal di dogg ne ko dootuma sàcc bàyyi naa sàcc góor gi ne ko man tamit dogg naa saa yoo jëndatee dinaa la may chocolat dootoo sàcc danga ko daan sàcc tey dootoo sàcc saa yoo jëndee maa la koy may ndeysaan xale bi daal di bëgg góor googu nag bëgg ko ci biir xolam saa yu jëndee góor gi jox ko soxla saa yu jëndee góor gi jox ko soxla xale bi di màgg ba nekk xale bu góor xam ngeen dund Europe ku fa nekk xale bu góor wala xale bu jigéen foog nga am problème parce que dañoo dummuyu diine ay nit saa yi dund dummuyu diine rek am problème bu dee ay jullit sax dañoo am problème waxuma laak nag ay ñi dul jullit moo tax Europe lépp problème la problème ba pare sans solution xale boobu ndeysaan saa yu amee problème seen kër wala ci biir société bi comme mag na léegi day ñëw ci góor gi ne ko man yow yaay sama xarit am naa problème mu nàngam xale bi góor bi bu waxee paa bi jafe-jafe yi paa bi ne ko xaar ma dem ubbi benn boîte génne fa benn mbuus tekki mbuus mi génne benn téere ñoo ne ko luy sa problème mu ne ko nangam ak nangam ak nangam góor gi daal di wëlbati ay page ne ko liiral bu liiree mu ne ko waaye man munuma munuma jàng lii mu ne ko sa problème lii la lii la lii la lii la lii la rek la wu na mu ne rek la wu na rek mu ne kontaan mu koy def saa yi ñëwee indil góor gi problème góor gi indi téere bi liiral ko problème bi rek la daal daal def góor gi daal di mag màgget daal di feebar hôpitalisé ko góor gi daal di génn àdduna Jacques yëg ne góor gi génn na àdduna mu ñëw ci famille bi di jaale si xale yi ne ko ah yow de sunu papa doon na la laaj bal sax am na benn cadeau bu mu la fi bàyyoon nee na boo ñëwee nañ la ko jox yu daal di génne mbuus mi rek Jacques daal di kontaan parce que xam na lan moo nekk ci biir mbuus mooy lan mooy téere bii rek la problème am moo fa nekk mu nag bi xale yi génnee mbuus bi mu xàmmee mbuus bi mu kontaan ñu daal di koy jox mbuus mi mu ubbi gis téere bi mu jël téere bi teg ci dënnam mu dem denc dugalaat ko ci mbuus mi takk daal di koy denc waxul seen waa kër dara mu amaat problème mu génne téere bi mais xamu mënul liir muy wër ci mbedd yi Angleterre ba mu dajee kenn mu ne ko yow arab nga kooku ne ko waaw kooku dëkk Tunisie mu ne ko mun nga lire arab kooku ne ko waaw mu nettali ko ne ko man de téere bi dañ ma ko may téere bi mooy régler sama problème man saa yu ma amee problème rek téere bi daf koy régler waaye ki ma ko doon liiral dafa génn àdduna léegi man mënatuma koo liir kooku ne ko indi ban problème nga am mu daal di wax kooku daal di tourner ay page daal di koy liiral affaire bi daal di relew jot daal di jaaxle mu ne waaw mais yow li nga liir nii sama problème yi mu réglé mais pas bi noonu la doon def dama koy wax rek mu liir sama problème rek la mais yéen téere bi téere jinne la wala téere magie la wala téere bi moom ban téere la ba man su ma amee problème rek su ma ñëwee ma wax ko rek suñu ubbee téere bi rek problème bi réglé wu tunisien bi ne ko téere bi mooy alquranul karim mooy téere yàlla moom la yàlla wàcc ci àddina bi pour mu régler problème mu àdduna bi téere bi mooy téere jullit yi jag ne waa ji nan laay def ba nekk jullit mu ne ko loolu yomb na trop mu ne yomb na mu ne ak kay yomb pare nga pour nekk jullit mu ne waaw waaw mu ne yëkkati sa loxo mu yëkkati mu ne waxal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jag daal di répété mu ne ko nekk nga jullit mbokk yi xam ngeen Jacques fu mu mujj tuubloo un million personne dugal leen ci lislaam ba tuubloo yaayam kañ la tuubloo yaayam ginnaaw bu mu génnee àdduna la yaayam yëg sentir li ko Jacques doon wax dëgg la yaayam daal di tuub fekk si waaye sama problème bu ma leen bëgg a wax yëpp du problème mu tuubu Jacques mooy téere bi dafay régler problème yi lu tax ñun julli ñi tey ñoo am problème àdduna am problème nara am problème àllaaxira dañoo bàyyi téere yàlla bi mbokk yi bu ñu la joxee torche boo ganisee benn dëkk bu lëndëm dëkk bi amul courant dëkk bi am ay xaaxaam ay xeer am ay jaan am lu nekk am ay garab lëndëm ñu jox la benn torche boo xam ne boo ko niitee léppay leer ci yow ngay gëriyee gëriyee lu daan ne xaaral ma fay lamp bu ko am man gëriyee la nga génn guddi yow gëriyee nga wala da ngaa dof lan ngeen di wax kooku gëriyee la wala dafa dof kooku dafa dof waaye du gëriyee ñun nag noonu lañ def dañoo ñëw ci àdduna bu bëri problème bi àdduna bu bëri jafe-jafe bi àdduna bu lëndëm bi yàlla jox ñu torche ñu fay torche bi ne yàlla garaawul quoi mënoon nu régler problème yi sans ñu niitu ci sa lampe bi moo tax ñu am jafe-jafe dara du régler tey ci Sénégal su ngeen demee tribunal ñaar ñoo fi ëpp ci ay dossier mooy miraas ak sëy miraas ak sëy dossiers yi ñu ngi fa tegal lu ko waral mooy ñàkk xam sunu diine borom bi subhanahu wa taala mu ngi régleel problème mu loolu ñuy wax ci xaam ci aaya bi su ngeen ko jàngee di ngeen dégg mu ne wa in xiftum shiqaaqa baynihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiqi allahu baynahuma inna allaha kaana aliman xabira borom bi nee na wa in xiftum su ngeen ragalee shiqaaqa baynihima ngeen tàqalikoo yéen ñaar seen diggante yow borom kër ak sa soxna yéen ñaar ngeen ragal am problème ci seen sëy baatu shiqaaq ci luga arab li muy tekki mooy al ixtilaaf wuute ñaar nit nag bu ñu wuutee ci biir néeg léeg-léeg kii tëdd jublu penk kii tëdd jublu sew kii tëdd jublu kanam kii tëdd wane ginnaaw xam ngeen ne sëy neexatul ah ñaar ñi nga xam ne dañ daan toog ci boolu lekk léeg-léeg kenn ki daal di tibb dànk sexal mbokkam sexal keneen ki ah léeg-léeg keneen ki tibb dànk sexal keneen ki ñoom ñaar ñuy dem di dem ba ci yàgg ku gis sa moroom mel ne ku gis sa noonu ñu dem ba ci yàgg kii di tëdd ci kaw kii di tëdd ci suuf ñu dem ba ci yàgg ki doon tëdd ci suuf génn néeg bi di tëdd ci saal bi saal ba amul sax lal waaye muy tëdd ci canapé bi. y a des problèmes nuñ koy réglé yàlla moo koy réglé amul problème bu ndaw wala bu mag lu dul buñ ko gaarelee borom bi tabaraka wa taala yàlla réglé lu allahu akbar balaa 24 heures bi dellu siwaat billaahi wallahi taala waaye ñàkk déglu suñu borom moo dañu am problème comme dañoo lànk dañu ne ni mu ngi mel ne xale bu ndaw rek buy nàmp nekk liir lu ko yaam ne defal da koy def muy raam yaam lu mu ko waxee eh bu commencé di dox yaam lu mu ko ne eh mu am sept ans lu ko yaayam wax mu def muy màgg ba am fukki at lu ko papaam ak yaayam wax defal day def su demee léegi ba nekk ngand nag paa bi day wax mu ne non paa ah dañ koy seetaat ah fer boobu dama koy xoolaat su yaay ji waxee mu ne ko non maam foo ma xoolaat affaire bi quoi gis nga de noonu lañ suñu digganteeg suñu borom dañu ne léegi ñun mesure nañ sax nañ ay sikkim lu nu neex def waaw yàlla day wax mais bon bon léeg-léeg nga dégg ku ne bon mais yàlla moo ko wax mais mais mais mais ñun dañu am xel ah yàlla wax nga ni yow am nga xel léegi après li yàlla wax da nga koy bàyyi sa xel ngay toog moo tax problème ñëw mu ne wa sumiya alxilaaf bayna asnayni shiqaaq li anna kullu fariqin min firaqatay adawa mu ne lu tax ñu tuddee ko xilaaf mooy wuute ndax ñaari kuréel yi ñaari camp yi dañoo tàqali koo pare noono ñi nekk ndeyjoor ñi nekk càmmoñ mbokk yi baat bi di shiqaaq qad warada fi lquran ala arbaati awjuh ñëw na ci alquran ci ñeenti anam baat bi di shiqaaq am na yàlla mu ne su ngeen wuutee bi ci njëkk mooy ñëw na ci suratu nisa aya 35 yàlla mu ne wa in xiftum shiqaaqa baynihima bu ngeen ragalee yéen ñaar wuute gis nga foofu wuute la fay tekki xilaaf aya 35 baatu shiqaaq lu mu fay tekki mooy xilaaf wuute wuute mooy lan lan mooy wuute ah wuute mooy ñun ñaar ñuy wax mais mënuñoo déggoo soo nee guddi ma ni bëccëg nga ni lu weex man lu ñuul dafa njool dafa gàtt kañ ngeen di déggoo abadan ñeen ñaar da ngeen a wuute moo tax mun leen déggoo ñëw na ci ñaareelu place fu ko yàlla tuddee ad dalal mooy réer borom bi ne wa inna zalimina la fi shiqaqin baid suratu hajj 52 foofu baatu shiqaq li muy tekki mooy du wute moo tax alquran firi ko di lu dangereux ndax da ngay jël benn mot fekk li nga koy bëgg a firi fee du loolu xoolal sànq la lañ amoon shiqaq lu mu doon tekki fee fii réer la fii tekki yàlla mu ne wa inna zalimina la fi shiqaqin baid ay fi dalalin aya 52 suratu hajj ci ñeenteel ñetteelu place lu muy tekki mooy al adawa non non qaala taala wa ya qawmi laa yajrimannakum shiqaaqi suratu hud 99 aw 89 89 foofu noonu lay tekki noonu noonu gis ngeen kon baat bi di shiqaaq wuute lay tekki ci benn barab yi yenn yi mu daal di tekki noon réer beneen bi mu daal di tekki noonu
ñeenteelu barab anna kullu wahidin minha saara fi shaqin bil adawa am na yenn place yoo xam ne dafa ñëw li muy tekki mooy wuute ak noonoo ak sorante
mu ne problème nag bu amee ci diggante ñaar ñuy dencante diggante jëkkër ak jabar diggante baay ak yaay problème am nu ñuy def mu ne ñaari mbir rek moo ci mën a am a tariqul awal yoon wu njëkk bi mooy al islaax baynahuma yéwénal a tariqu saani mooy al qada baynahuma atte bu problème amee balaa atte di am li ci alquran wax mooy nañu yéwénal diggante bi nan ko jéem a defar al islaax nan ko defar waaw nan defar diggante ñaar ñii di dencante muy bëgg a yàqu est-ce que xam ngeen nit ñi bu ñu bëggee defar rek mu defar su nit ñi amee intention defar day defaru waaye da ngay gis koo xam ne danaan fii maa ngi dem waaye bu ma yeggee sëy bi ci xaj laa ko jëmee li garaaw tey ci Sénégal mooy da ngay dégg xale jigéen ñi li ñuy wax man de sëy bi sëy naa ko ba pare mës naa gis benn xale bu jigéen bu am ak jëkkëram problème ñu wax ma ko ma dajeeg moom di ko laaj yow ana sa jëkkër mu ne delloo naa ko ndeyam comme ça delloo naa ko ndeyam léegi loolu xew ko ne ana sa jëkkër delloo naa ko ndeyam ah c'est pas possible xale bu jigéen boo ko wax mu ne non sëy kenn dootu ci sonn sëy nii nga koy def bu la waaj na restaurant rek xëpp ko ko ñibbi moo tax looy gis léegi sëy deux mois sëy trois mois sëyu six mois sëyu un an bi bi mu ne bi ndaw si ne cëpp ci la ñibbi kooku benn ci jigéen ñi beneen beneen bi ci góor ñi mun a fen mun a fen soo takkee jigéen ci ay fen say bi du dem attention yaa gën a leer ne mënoo luy appartement eh waaye xoolal gis nga man ak yow foog ñu dund dund bu neex quoi foog ñu gérer fekk da ngay fen xam nga ne amoo ndaw si bu ñëwee nga ko doon dig aljanna gisu ko dañ bi du fi toog beneen bi mooy doxaan ak sëy du benn doxaan mun na neex de parce que yaa ngi takkoo booy wàcc saa yooy wàcc mun ngaa indi banaana saa yooy wàcc mun ngaa indi dibi parce que takkoo yaa ngi da ngay jéem pour ñu bëgg la lu leer laa leen di wax waaw parce que takkagoo da ngaa bëgg ñu bëgg la soo bëggee ñu bëgg la nag lu la wax indi da ngay indi bu la woowoon téléphone sax allo nga ni woy ñu ne foo nekk nga ni maa ngi ni place de l'indépendance ñu ne man biddéew laa bëgg de biddéew nga ni dugg su may wàcc naa koy daal léegi nga di it lan lan nga bëgg yow déedéet doo laaj sax nga naa ne waaw dinaa ko indaale pourtant bu la sa yaay waxoon damaa bëgg soom bi doo ko indaale ah ci ñun fii tey jii ku sa yaay woon téléphone allo asalaamaaleykum mbokk foo nekk léegi dama xiif yàpp waaw yaay yow tamit nag ah yàpp te bu la xale bu jigéen bi ne yàpp laa bëgg nga indi yàpp sa yaay bu la ne yàpp laa bëgg ngeen di problème ah est-ce que benn la kon nag dañ def attention yu bëree bëri ci ay sëy yu yëngu commencement bi moo amoon problème amaana waa ji diggee na lu mu mënul walla walla walla ndaw si tamit am na lu mu foogoon gis na la rek saa yoo wàcc dawal benn beyam xamul beyam bi fu mu beyamee xamul yére yu ñuul yi fu mu ñuule xamul saak bi lu ko ñuulal xamul biye yi nga yor foo ko jëlee boo ñëwee rek daal di koy sànni benn diimil na ko nan caayin booyee caayin bi jeex nga ne nan meew meew bi jeex nga ne nan lakk dibi doo bëgg a ñibi xam nga loolu du ko dina de gisoon naa koo xam ne bu muy doxaale ji day ànd ak borom xalam bu ñëwee toog borom xalam bi di ko woy rek ñëpp a toog na ko baax na waaye mu jur bu baax na yooyu du dëgg te lu dul dëgg du yàgg noo mun a mel waxal nii nga mel lii nga am fii ngay liggéeyee lii nga bëgg jeex na su ko defee ëllëg si biir kenn doon na yow yaa waxoon loolu du waxale borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñaari mbir bu amee ci diggante góor ak jigéen lu ci njëkk mooy nañu al islah dañu yéwénal diggante ku góor ki ak ku jigéen ki bu ñu yéwénalee mun a këcc bañ a dem nañ àtte alqada àtte àtte nag xam ngeen lu ci mooy justice mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa in xiftum su ngeen ragalee shiqaaqa baynihima tàqalikoo seen diggante fabaatu na ngeen yónni xakaman ku xereñ gis ngeen xakam la ko yàlla tuddee ku xereñ ku dégg jamono ku dégg diine ku am xam-xam mu ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi nii di régler mbirum société beneen barki dem ñu ngi doon jàng nu suus mooy fay problème la fay ngi sa kër jëkkër dem kii nag moom jógewul ci kër gi dem mu ngi ci kër gi waaye ñoom ñaar bu ñu tuddante dañoo meroo benn saa ngay gis ci kër jawar yoo xam ne ñu ngi ci benn benn xale bu jigéen mos na ma woo Canada dama maag sama jëkkër mu noonu nekk ci kër gi un an du ñu tuddante un an mais c'est catastrophe ma ne ko waaw yéen ay lan ngeen mu ne ah mun na nekk de un an Canada États-Unis loolu garaawul ah loolu munu nekk yaa jigéen ci benn néeg at lëm waxu leen at ñaari at ay weer te muy sa soxna ngay bërëm këram ngay ku nekk di jéem a jaay gudd bakkan ku nekk di jéem a jaay ne day dof dof lu dina xam ne maa ko gën a kannas seen sëy du dem waa ji bu muy takk jabar da ko ne woon man ak yow duñu mus am benn problème mu ne ah loolu du mënuy nekkee mu ne saa yu ma gisee ma mer neexal ma saa yoo meree ma neexal ma est-ce que xam ngeen ne ku sa jëkkër mere jigéen bu ko jëkkëram mere mu ñëw tey xale yi ñu xewal nii alors papa chéri yow danga ma mere ah ay yow rek eh waaye ba léegi def waaye waaye mere wala waaye ay wàcc waaye ak ak ku jigéen gi ak ku góor gi mais bu fekkee ku nekk dafay wàcc di jaay fii di génn mbagg di ngand ngandal su sëy bi jëm wolof yi dañu ne ñaari ñaari kuy ñaari kuy lu ñu bokk mbalka kon sëy waru nekk ay problème kuy waru nekk ay problème fulla ku nekk di jaay fulla ku nekk naan man kii bu rëy laa ko ma koy neexal ah kay sëy neexalante la yonent bi da doon neexal yaay Aïcha te yonent bi mooy modèle bi yàlla yónni ci ñun pour mu wan nu ñuy sëyee yonent bi yàlla moo ko yónni pour mu jàngal ñu nu ñuy sëyee looloo tax yonent bi donc mooy roykaay yeneen yonent yi mënuñu leen roy yonent bi ngay ñëw ci wàllu sëy mën nga ko roy ci wàllu yar doom nit yar doom mën nga ko donn ci wàllu jiite société mën nga doon mën nga roy yonent bi ci wàllu atte ci wàllu lu nekk wàllu yëpp anam yëpp mu yonent bi rek waaye yeneen yonent yi da ngay gis ne kenn ku nekk benn nga ci def benn Ibrahima am na doom waaye jiitewul woon société Isa amul doom ah amul woon sax soxna gis nga Moussa jiite na société waaye amul doom gis nga yonent bi moom lépp la def lu tax parce que mooy modèle bu mat yonent bi xool da doon neexal Aïcha day toogu ci àgg mu ne ko yaa Aïcha saa yu xoolee Aïcha changé te te ni muy xàmmee Aïcha changé ne daf koy xam ndax yonent bu gisee Aïcha ne wa rabbu Ibrahim yonent bi naa tey am na lu xew kër gi changé Aysa su mere woon yonent bi du tudd turu yonent bi danaan gis naa ci borom Ibrahima wala romb turu yonent bi yonent bi su ko defee xam lu xew mu ne ko yaa Aïch wala neexal tur bi yonent bi sangoondoo na sax ak soxnaam ci toile sangu sangu sangu ah yonent bi ànd na ak soxnaam daw ci mbedd daw daw yonent bi togg na yonent bi bale na yonent bi raxas na sallallahu alayhi wa sallam te moo gën ñëpp lan moo tax muy def loolu yow mii la bëgg a jàngal man mii la bëgg a jàngal ñun ñii la bëgg a jàngal ne lu ngeen rëy rëy rëy man maa leen gën a màgg te def naa lii ñun tey boo fi gisoon benn imam bu dem marché rek yore yore leket bi yenn ko wala siwo bi problème la wala mu ànd ak soxnaam ni ñoom ñaar ñuy entraînement da ngay gis waa ji dem di gees gala oustaz
wala sama bëri yee baaxul
lu ci dey yonent bi def na ko te pourtant bu doon benn xale bu jigéen boo takkul da ngay bëgg nit ñi gis la wala nga ne sa soxla bëggoon nit ñi gis leen te boo àndoon ak benn xale bu jigéen boo takkul nga bëgg ñu gis la waaw ngay jaar ci mbedd mi nag di yëkkati dënn naan nii ah kon nañ delluwaat suñu xel dañu xam ne dund bii di lislaam du ay caaxaan du ay caaxaana lislaam dëgg la te yàlla moo bëgg ñu dund moo tax mu indil ñu yonent bi pour ñu mu jàngal naka la ñuy séyee naka la ñuy yoree kër kër leen yaakaar ne xaalis moo ko yor am ñoo xam dañu naan non mais li ma yor man lakk du jeex femme bi ne du toog du loolu du xaalis kër xaalis yoru du doole aussi doole waaw yow gis nga moo ma fontoo seen waa kër yëpp mun naa leen dóor dama lay dóor dóor sa paap déet affaire boobu du doole kër xel moo ko yor xel kër xel moo ko yor sëy xel moo ko yor xel teey olof yi dañ naan ndox dañoo bëgg mu teey waaye ci nit lañ ko gën a bëgg borom kër du ëppal borom kër day teey borom kër day def ndànk su ngeen gisee alxuraan yàlla bi mu ne inna min azwajikum wa awlaadikum aduwan lakum faxzaruhum waaye lu mu ci teg wa in taafu wa tasfahu lan mooy baat yooyu ñaari baat yooyu wa in taafu su ngeen jéggalee wa tasfahu ngeen jéllale lan mooy jéggale ak jéllale ñaari baat yooyu yàlla na la sa soxna ak sa ak sa doom ay noon lañ waaye nag du doo leen doo leen nii rek gis nga olof yi dañuy ne ku xool gis ku xool gis gis nga nit koo nekkal 24 heures nga gis sikkam su ngeen gisee suñu kilifa yi du ñu nangu lekkandoo mbooloo yi mbooloo yi suñu kilifa yi du nangu nekk ci biir mbooloo bis bu nekk di jonjonteeg nit ñi di jaxasoog nit ñi yaa ngeen gis manqué manqué sëriñ bi aka bëgg laaxu aka mën a dànk bu yàggee mu toog ba jàgg jël sa tala romb la nga ne ah kii fu mu jëm man ma defa ne man ma defa ne yenn saa yi jabar ji fekk mu toog ne ko xam nga yow tey joxoma dépasse yow waaw maa ngi lay xaar nga ne maanaam loolu moo tax ñuy daw nit ñi maanaam yooyu ay mbir la yoo xam ne dafa nekk ci biir ànd léegi nag saa yoon fréquenté nit bu day bëccëg ñeen di nekk bu yàggee nga gis yooyu ci moom soo ko gisee après day xeeb yooyu day manqué wala duñ bugg nekk ak kenn bu ñuy lekk ñoom rek bu ñu toogee nit ñi du ñu yëngatu yëngatu bu bëri du ñu wax wax bu bëri nii rek tàkk doo seen noir fi nga noonu après ñu jóg dem seen yoon parce que manqué manqué yooyu la ñuy bañ mu feeñ moo lañu jéem a masqué parce que nit matut alkamaalu lillah yàlla rek a mat léegi nag kër boo yaakaaree ne doole moo ko yor wala alal moo ko yor wala déedéet li yàlla wax mooy mooy jéggale jéllale kenn matul yow matoo nga bëgg ndaw si mat yow matoo nga bëgg ndaw si mat sans ba ci yenn saa yi sax ñuy dund diine ah dañu su ko xam ne danaan wóor na borom asamaan gis nga yow temps yi dama lay gis doo doo defar sa kaala gi léegi ma fase la dé délen daan del waaraate del waxtaan waaye bu guddi ba nit ñi nelaw nga yee ko ngeen wax aussi de ko yóbbu ci place yi nga xam ne imaanam day yéeg parce que batterie rek boo xam ne day kaaka bés bu nekk kenn ko remplir day guddi te xam ngeen ne ñun suñu société lii lii lii sol imaanu nit ñi bëriwul suñu société Sénégal lii yor imaanu nit ñi bëriwul chaque jour imaan yi dañuy vidd parce que mbedd mi da koy vidduloo kër yi di ko vidduloo télé yi rajo yi daanaka Sénégal saa yu xëyee ci imaan bu rës ngay yendu ci ngay fanaan kon nan def ndànk wala yàlla ne dee leen jéggale waaye dee leen jéllale jéggale mooy day def dara nga gis ko xam ne lii def na ko nga sëgg ba mu am ñetti fan nga doog a cee dellu si doo ko wax asalaamaaleykum waaye yow de barki démb moom mbir moom nga doon def noo ko mënee kenn du gis léegi léegi benn problème léegi réglé ko léegi day day jur safara jëlaleel mel ni ku ko gisul nga bàyyi boobu ginnaaw suba wala suba ba yéen ñaar ngeen toog nga ne ko waaw barki démb waxoon naa la bul toog ci mbedd mi démb bi ma wàccee fekk naa nga toog ci mbedd mi mais nga ne ko bul toog ci mbedd bi nga wàcc fekk mu toog ci mbedd yi mook ay moroomu jigéenam nga ñëw ne ko yow xam nga yow danga ma yab mu ne la xam est-ce que nit ñee tax su ko bëggee toroxal ci kanam nit ñi mu mu riposté nga ne ko yëg boo fekkee ku tàng nga nga sox ko mu soxla ci mbedd mi nit ñi doon ñëw léegi nag problème ñëw na fekk mu doon nga ko rek lay neneen lu dul noonu wala kon nañuy tey ndànk waaw si problème bu nekk ñu jéem a xool solution buñ koy réglé loolu la ñu yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi borom bi nee na subhaanahu wa taala mu ne wa huwa in xasala shiqaaq bu fekkee problème am na tàq jafe-jafe bayna zawj wa imraati yi diggante jëkkër ak jabar fa asbaha rajul fi shaq góor gi nekk côté wal mar'atu fi shaqin axar jigéen bi dem beneen côté kii dugg ci néegu xale yi ne man fi laay fanaan xale yee dañ leen sàll la xale yi naan papa lan la non non seen yaay dafa bëri problème man lay créer dina ma xam xale yi dugg ci saal bi ne yaay lan la seen papa dafa soof gis nga problème yooyu léegi xale yi sax dañ leen ciy dugal su ko defee xale yi kii dégg na yaay sa- suñu yaay daa bëri problème kii dégg na seen papa dafa soof soo ne xale yu jigéen ñu ne wax nañ dëgg sama papa dafa soof soo ne xale yu góor yi ñu ne sama yaay dafa bëri problème góor ñi parfait jigéen ñi parfait kër googu dootul neex yal na yàlla dimbali mu ne falaa tulaaqi baynahuma wala wifaaq wala wi am léegi nag ndeysaan amatul cofeel amatul miineel amatul amatul teeru amatul may la ndox amatul tànqal la ndox nga sangu amatul amatul kenn cofeel amatul seen diggante parce que problème moo am léegi luy xew wa zalika li suubati alxaali ndax instant yi problème bi am seen diggante moo tax kon fa tariqu ila xalli haza al muskila yoon wi ñu yor a jaar pour régler problème boobu mooy ma arshada allahu taala ilayhi li ñu yàlla orienté li ñu yàlla jubal loolu mooy solution bi foofu yàlla jubal ñu mooy fan wa huwa an yab'as waliyu zawja xakaman min qibalihi baayu eh, soxna si ne yónni ku baax ku jàng ku dégg diine ku xam àdduna ku mag mu régler problème bi wa yab'as waliyu zawj baayu jëkkër ji moom tamit xakaman min qibali na yónnee ku baax ku jàng ku dégg diine ku dégg àdduna ñoom ñaar ñu daal di daal di régler problème ñoom ñaar ñooñu buñ ñëwee incha allah solution dina waaye bu fekkee sëy dafa am problème fii tamit nañ def attention ñu yónni ay bandi ñooñu tudd bàjjanu gox ak maami gox ak tàntaay gox wala ñu yó- ñu yónni jigéenu yoor yoor sëy bi du rek lew mooy maire yooyu nga xam dañuy ñëw man de dugg naa ci néeg bi dëgg la ba léegi mat la la yor amul lal xam nga kooku du rek la problème bi lu ci sa yoon li muy wax dëgg la ba léegi ci mat la lay tëdd waxuñu la woon pour loolu dañu ne woon demal pour problème bi rek la nga dem ndaw si ne la bu ma sëy sëy ba léegi aw ma lal ne ko lal du dara indil ko misaal ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci basang la daan fanaan Fatima moo gën ci jigéen ñi ci basang la doon fanaan saa Haajara Ibrahima indi na ko ba ci àll fii waadin gayra zi zarin inda baytika al muharram ci xur woo xam ne montagne Ibrahima defal ko benn néegu ñax wan ko ginnaaw bi ko Ibrahima mu ne ginnaaw ndaw si dafa jàpp ci mbub mi ci mantu bi Ibrahima geesu mu ne ko waaw ci àll bi nga ñuy sànn kan moo la ko sant mu ne ko yàlla mu ne ko demal yàlla kon duñ seetaan xoolal ndaw soosu mbokk yi nanguloon ya nanguloon jëkkëram nangul yàlla njëriñ bi mu indil doomu aadama yi ndox mi gën ci ndox yi ndaw soosu moo tax mu am muy zam-zam soo demee Safa ak Marwa góor ñi bu ñu fay jaar dañuy daw jigéen ñi bu ñuy jaar dañuy dox tabaski ndaw soosu ci barkeem moo tax mu am ndax moo jur doom yi nga xam dañ ko waroon rey aj màkk moom moo tax mu am ci barkeem lan moo tax bu bi ko nee jëkkër ji ne wax bi mu nee jëkkër ji ci àll bi nga ñuy bàyyi jëkkër ji ne yàlla ñu ko sax ana yàlla anamu anamu fu mu la ko sante yow da nga dof xam nga man doo ma fi bàyyi mais xoolal daf ko ne demal yàlla du mu seet moo tax yenn saa yi am na ñoo xam bu ñu leen yónnee pour ñu régler sëy sëy bi du régler parce que dañuy ñëw fekk femme bi di kaas loo xam ne peut-être dëgg la waaye mën nañ ko régler neneen diw wan ko ay misaal ay jigéen yu jaaroon ci àdduna yoo xam ne lii muy kaas amuñu ko woon ñu ko bàyyi nag dinañ fexe sa jëkkër insha allah topp tool jëkkër ji tamit wàccee ñu wax ak moom dëgg koye yow kat kii li muy wax yow it mën nga ko soo ko mënul sax ñu ne la jéemal weer wu nekk demal fee nga dugal cinq mille boo defee dix mois wala nangam dina am lu fa nekk su ko defee jàmm daal di am ñu daal di jubóo waaye da ngay gis tey ay problème yu ndaw yu tuuti di tas ay sëy yoo xam du dara lu tax parce que dafa am ci ñi ñuy yónni délégation yi nga xam ne ñoo war a defar daf ci am ñoo xam ne ñoom mbirum àdduna moo leen yitteel waaw man de soo gisee xale maire buy defari sëy naan man de ba ma ca tolloo ñaw ah cam kenn yabu ma woon man lu ma joxoon ñu dagg ko ah léegi sa soo waxee loolu sa doom bu jigéen bii sëy loo bëgg moo tax gars yi dañ naan ku am jabar yaayam di dund amagoo jabar gars yi loolu la ñuy wax rek ñu ne ku am jabar yaayam di dund amagoo jabar moo tax bari na maire yoo xam ne bu bu seen doom yi di sëy saa yu ko ñëwee nuyoo si rek buñ ñibbee rek waa yu ñëwee rek fekk jabar ji kanam gi ne kurub daal di lëndëm ñuul ko waaw yow seen néeg bi ba léegi nii la mel ba léegi sa rideau yi sax mënoo koo koo changé ba léegi sa lal bi tapis bii de ba ngay siisi lañ ko fi dugaloon am nga fi ñetti doom ba léegi moo fi nekk nga wàcc rek ndaw si daal di ñuulal kanam ana reer bi ma nga waañ wa wala xale yi ñu indil la ko ñu ne waa loxo ñu ne tapis bi xool nañ la ko changé ko changé ko problème yàlla ñu yàlla dimbali yàlla yàlla jàppale yàlla yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp leen yàlla woon neen wërsëgal ñu topp yàlla mu ne su loolu amee faba asu na ngeen yónni waxo yu xaatibul muslimin yàllaa ngi wax ak jullit yi gis nga de même jullit yi sax waxul sax papaay ndaw si rek wala yaayam mais dafa ne faba asu yónni leen xakaman xereñ alxukmu alxaakimu fi lqada da ngeen yónni ku xereñ ku xam mbirum àtte ku xam mbirum yéwénal waaw waaw su ko defee ñoom ñaar borom bi ne kenn ci ku góor ki min ahliha kenn ci famille ku góor kenn ci famille ku jigéen ki ñaar ñu baax ñu mel nii ñoom ñaar in yurida islaahan bu fekkee li ñu namm dëgg dëgg dëgg mooy defar loolu dong moo leen tax ñu jóge seen kër loolu tax ñu tukki kenn ku nekk dagg paas kii jóge Tamba kii jóge Dakar ñu daje yi Cees ngir defar loolu dong moo tax ñu jóg yuwaffiqi llahu baynahuma yàlla dina leen dëppale ak solution waaw defar moo tax nga ñëw waaw waaw yow tamit defar moo tax nga ñëw ñu ne waaw kon lu ñuy def ba defar kii mu ne man de gis naa bu ñu defee nangam ak nangam te ñu bàyyi nangam ak nangam kii ne ñu def nangam ak nangam ñu ne wax la dëgg bismillah nañ def loolu jeex na yuwaffiqillahu baynahuma yàlla dëppale leen solution daal di ñëw waaw waaye booy defari sëy nga gàddu jaasi nëbb ko ci sa biir poos kële gàddu kuuru roof toogaale ko xam nga ni ñoo ñu defaruy sëy mooy paa yi dem jàkk yor pistolet ñi yor ay kii benn paa day dem di nodd fajar daal di yóbbu benn mbolde diru yat bi ba ci buntu jàkka ci mu koy suul ndeke bi mu koy suul am na ku jóge fële di ñëw mu ngi seen paa bi mu ngi suul yat bi mu bàyyi ba paa bi suul yat bi ba pare dugg ci jàkka ji man dama war a wax ndànk sax ndax jàkka ji soriwul fi mu bàyyi ba paa bi mu ngi gis takkandeeru paa bi gis na paa bi am na lu muy suul mu ba xamul lan la nag mu bàyyi ba paa bi suul ba pare ba dugg ci jàkka ji mu daal di ñëw fi paa bi doo ko di nii rek gis yat mu daal di sulli yat bi dem denc ko feneen ah deuxième bi laa daal di ñëw daal di jubal jëli micro bi rek paa bi ne ko bu laal micro bi yow laay wax eh ma ne bu laal micro bi laa wax laa wax ah kon nag da nga koo moom micro bi di ko jàpp rek xaaral ma ñëw mu daw di jël yenn yow am nga sens rek kooku toogoon dem si sulli yat bi ne yat baa ngi nii imagine leen bu kooku sulliwul woon yat bi mu ne ko yow yat bi fu mu ko jële mu ne kii moo ko suuloon fi yow la ko doon dóor moom la dawoon jëli xam ngeen bis boobu jumaa yooyu fu mu ne ci toog réunion pour pour defar seen problème ñooñu noonu xam nga kuy dem jàkk di suul yàq est-ce que julli moo la yóbbu julli yóbbu la waaye kuy dem di defari sëy yóbbaale arme woddoo paaka wala yoddoo kuuru rook wala yoddoo benn chaîne ba pare yow nga da ngay defari sëy bi na moo jàmm ku bëgg a defari sëy da ngay def li yàlla wax hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yàlla nee na in yurida islaahan bu fekkee yéwénal rek lañ bëgg yuwaffiqi llahu baynahuma yàlla dëppale leen yàlla indil leen yiw ñu daal di déggoo suñu waxee rek daal di nangu gis ngeen aaya bi leen di wane suñu borom di suñu morom te ku xereñ di suñu borom kaana aliman xabira gis ngeen lu mu tëj aaya kaana mustadañ moom suñu boroom aliman di xam lépp amul lu mu xamul waaw yàlla lépp la xam moom xam na ne ñaar ñi buñ ñëwee buñ jaaree yoonu déggoo rek dañuy dégg waaw amul benn problème waaye xabiir moom yàlla ko dañ kumpa la lépp la xam lii nag moom dong moo xam ko dañ kumpa yenn saa nga dégg ñu ne ñu jël baat bi adressé ko doomu aadama ne ko yow ku dañ kumpa dañ ko war a wax yow ku bañ kumpa ki dañ kumpa mooy kenn mooy yàlla moom la dara umput ki dañ ci kumpa gi du seetaani ki dégg ne tël daw génn kër gi naan loolu mu kooku mooy ki bañ kumpa ki dañ kumpa mooy ki toog ci kër gi naan ne loolu de nangam la du koy dañ kumpa kooku yàlla tabaraka allah yàlla amul lu ko ump yaalamu maa fi samawaati wa maa fi l ard xam na li ci asamaan xam na li ci suuf xam na li ci géej gi xam na li ci jéeri ji amul lenn lu mu mën a doon lu yàlla xam na ah moom yàlla subhaanahu wa taala mooy alim mooy ka xam aji xam ci mooy xakim mooy ko xereñ moom yàlla moo xam wallahu yaalam wa antum laa taalamun yàlla moo xam yéen xamu leen lu tax wa ma utitum min al ilmi illa qalil li ngeen am ci xam-xam tuuti la yàlla nag mooy alim mooy allaamul xuyub moo xam lépp mbokk yi loolu mooy sunu darsu tey ñu ngi naan pour yàlla bu jéggal asalaamaaleykum wa rahmatullah am na question incha allah bismillah